trois minutes. da nga amul trop xaar ko léegi mu ñëw dina indi de. mais yaa ngi jàpp temps bi ma sama jàpp ma temps kii léegi mu ñëw. ah yow li bari jàmm la. Kadi. sa ak xam nga affaire bi na minutes. xam nga man après damay gaañ. président ba jàmm la. nee na man gaañ bi ma war a gaañ moo moo nekk sama problème. kani nit mu ñëw. nit nit nit nit moom nit mooy mbokkam te balaa ñu ma seetaan ma gaañ. yow kalaame na wa nee naa la mu ngi ñëw kay mu ngi ñëw ah xaar ko. ani ani. non. ay. déedéet temps amul xoolal après suñu pat. booy booy temps amul par day xoolal. waxumaa waxumaa yoon temps moo amul temps. kër yi. nii nga ma jiwoon. ah mu ngi noonu. xoolal taa ñëwal ñëwal ñëwal taa moo amul. Hmm? xam nga lan laa bëgg sa yëfu ñàkk fayda yi nag ma ci génne dégg nga. kan ma ñàkk fayda man duma ku ñuy dàq ma ñëw fi ñu dàq ma nga bëgg ñu jël si waar ma ma ñëw. déedéet dafa jum dafa jum. xaw ma kañ waaye tey mën tamit ma woo. Eh, ah def na devoir am wax dëgg yàlla indi na ko dégg léegi nag wax amul dara. mais cafa cafa eh, temps amul de. Eh, eh, temps moo amul temps moo amul. du ma ay mooy temps amul. deux minutes rek ay deux minutes yooyu deux minutes mooy cinquante secondes moo des. luy loolu yow lan moo la da. dama naan dama naan. loolu nag affaire bi dama naan nay dëgg te doo daanu moom laa naan. yow mii waaw léegi foo ko bëgg a daanu fii nii. su ma nee su ma su ma daanu damay gaañ. loxol lay uti ji saabu. man wala Omar ko tey xalaat la. ay waay am to am de bu yàlla defee ba nga jox ndege te chrétien dina dimbali julit ci wàllum tabaski di ay waay en tout cas kale attaade bendi jaf gis nga booy yow sa diggante ayaat dama lay laaj benn question est-ce que yow man ngay xool nii ki ngay xool nii est-ce que man la hmm. yow gisoo si man ay nebatu rahmatullahi alayhi wala alayha yow gisoo ko si man hmm. maanaam ay këyit tàgg yooyu ñu koy bind yow gisoo ko fenn si man sama yaram gisuma ko de xam nga bu may gis fi mu toll nii. waaw fi sabili la ndax lii nga yor nii ko yor ku ne fii nga war a taxaw. Eh. Eh, rey sa bopp di nga. yow ca ca ca man vidé naa ba a jeex affaire yëpp de naa ko sama foos yi yëpp vidé naa ko ba mu jeex dara desul ko. Eh. yow. kon nag sant ak yàlla mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla. yow caf. Mm-hmm. dëgg dëgg dëgg saabu njëriñ njëriñam du fóot kese. ak bàcc lay mun na leneen. kon na ma la ko ko dem. Ah, ah. na ma la ko waxee nga ko def léegi yow caaf est-ce que man gaañu naa wala gaañu ma eh, yow kay yaa ngi dund ginnaaw jël nga saabu kay yaa ngi dund man gëm ma damay dox si mbedd su ma doxee eh. nit ñi di ma wax cent mille sept cent mille sept maa xam ne man gaañu ma eh. ah, kon nag wéyal xool ba xam bàyyi nag gis nga mag du def lu mu gis rek mu dugal si lamiñam wala loxo bu kenn ñëw fi bu ko daal xamoo lu ma gànnaa yow waaw xam naa ne ba nga am na doole waaye ci kanam ndaa gën a ubbi sa tànk yi sax fi mu doon. yow comprendre sax. laaj boo bàyyiwul mooy yàlla da nga yàgg a tëdd fii doo am liggéey de. yàlla ya, ku ma mooy rek moom la neex comprendre sax yow da ngay xale. eh daa doxal àdduna ci sa kanam da nga xamante ni man sa baay mi lu ne def naa entreprise liggéey naa ko fanweeri at ak juróom-ñaar lu ma yor jëndee koy taat moo ma toog nii mbir mi ma mënoo ci dara. Ya, li waji nan rimbax ba pax bii du sama pax paxu jàmbur la kan. di nga nga jàpp ni pax mo gis rek war nga caa dugal sa loxo yow ya moom xam naa da nga wara da nga mësa jël eh, sa loxo bi dugal ci ap pax caapa mat la ndax la ca bëgg da bari waaw ya, doxal rek aduna ñu non am yaa may sax li may waxtaan ak Antoine ah, ah, ah Mokhtar yi ñëwaati eh ye mama mama se yu mama mama say. sant yàlla waaw man de maa ngi woon si garab yi. Hmm. waaw garab yi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla day neexal sëy hmm. dalay jox sante bu bien. Hmm. dalay jox wér ak wérle. waaw garab yu mucc ay la waay. garab yoo xamante ne wax dëgg yàlla boo ko laalee da ngay am tawféex. waaw fi mu nekk nii moom. maa ay si nga xamante ne ñi nga xamante ne dañuy xuloog seen jabar yi guddi ak bëccëg. ñi nga xamante ne seen jabar yi dalee na ëpp doole. ñi nga xamante ne seen kattan dafa néew. ñi nga xamante ne amuñu kattan bu ñu yégee yéegee si jigéen rek nekkee lebet ñooñu maa aay si ñoom. waaw yow mii nag. Mm-hmm. ku jar a jëflanteel. dëgg nga mm-hmm. xam nga euh, li naan jigéen xel ma daa sëgg. Mm-hmm. neeween ma. dëgg la man problème mu cus laa am. man daal bu koy lamb rek may daan. Ah. xanaa baax. am na am na lu ma lay loo xam bu ma ko joxee ba nga naan. Hmm. mun na lam sa cus une semaine doo daan. di eh, waay déggoo li ma la. ngay ah. dégge tey métti te doo daan. <laughs> sama waa ji yow daa mel ni. Eh. yow daje ma doon séen. ma la maa te xam nga eh, man dama bokkul ak yenn pay mhm. sama bos bi da am tur da am melo. déggal li Thomson John Dodos bi da yu men wala bok ni la ko tuddé déggoo mané la sul ma ci gaw ba paré yor biria multicolore. déggal loolu dé ha ha ha xaaral biria color la am nak. ah eh, So waji yow da mel ni dal layla gis nga bi bii. Hmm. Hmm. la ilaha illallah bi mun nga moko ko nan mun nga tajale juróom-ñaari guddi do daanu. moom kay kekk lay def rek nii lay def eh, eh, taxaw eh. sa puissance di gën a yokku looy gën di ñàkk rek muy muy muy muy gën a tali sidit kay du luy daggi si nga yor déggoo du lemu fi mu ne nii kay danga koy rek muy dugg si rawlal bi di yéeg si kaw coiffeuse bi di dal si kaw dal bi ngay wàccee di door maa la wax li ay man mi nga xam ni damaa mën ay porox ndox tool luy tooy tara tax ban mbaam xeetu rëy biir soxor mën a mat ay cëb ragal bu la mat ay nga dem ku dagal loolu loolu maa koy juróom-ñetti jabar laa yor. la la. looy wax ni li ma yor fii laa ko yeew si oom bi <laughs> sama oom laa ko yeew. lambal xam nga lii. duy ndomb de. du ah foofu laa ko croisé. am na ni eh, rawee woo ma dara. wallaay wallaay. waaye moom ñaata ah ñaata jë jëla cinq la cinq mille la. junni la junni la junni laa koy joxe ah, ko. ki nak nu wañi ko rek dekk bi neexul nak sëñ medun sey borom taw fi xamne dama la wañi hmm. dama xamne ne nga motax ma wañi la ko. ah yow li garab borom taw fi moma koy jox. Eh. yi moy garabu borom taw féexi hmm, dama ne man xamna naa medun sey de te ay garabam oh, wax deug yalla day am etiquette dégg nu nu jaarale ko fan ko wara jaar yi yu bes la dem lay doga ñew motax etiquette tax étiquette bi nekku ci seen medun sey léegi ko bëggee mën na la jox numéro moom moom moom laay nekkal si terrain bi wallaay wallaay li ah booy man dama jàpp ni ah doy na war seen medum sey xam naa ko de bilaay sëriñ bi daw biix la de sëriñ bi caaf hmm? waaw nga baal hmm. kii moo ma joxoon affaire bi affaire ba affaire bi bu amoon fii kii moo ma ko joxoon caaf hmm. so bugu khardek dangay dangay song zari menni ki mune fan garaba falak je neena si sëñ medun sey bo oram tawfiq moo ko ko jox dama xàmmee naa yu sëñ medun sey nag kii su la wax loolu waxu dëgg sëñ medun sey garam dafa dem si laboratoire waaw daf koy encastré daf ko defar ko ba mu xamante ne dañ koy mun a denc lu yàgg te du yàqu lii ñu pakate si mbuus mu ne sëñ medun sey moo jeex lii sëñ medun sey kañ la toroxee nii lii bokk gis nga xam ne ku torox kii moo ko moom ah boy sa mel dafa nekk si ay caaxaan teel teel li booy xam nga lii ngeen di def du dëgg du yoon ah bàyyi leen di sosal doomu aadama ah li imagine lii rek lu ma wóor ni du euh, euh, këti jantaabal ah boy yéen lu nekk capable ngeen te këti jantaabal foo ko diwee cib sull mooy am nga problème ci àdduna déedéet déggoo de ma ñàkk sama ndey barke faapes waxuma seen medul seedi dama ne garab gi si bu nawet bi jotee taw bi buy taw xam naa loolu nga dégg defe na seen medul sey la moom de yow mii naa fekk ndëgg mi dégg nga hmm. woon kii di ma ko diwloo te man yii ngeen nekk nekkuma ci dégg nga la hmm. lenn rek naa ko dimbalee man ci réew mii ma nekk lu may def xam naa lan la ginnaaw dangaa bëgg liggéey nan ko teg ci yoon mun naa laa boole sëñ Medoune Seye borom tawféex mu jox la garab yi wóor yi muy joxe. nga xamante ni garab yi boo ko xoolee xam ni yii yunu saytu la. laboratoire la nu koy jaarale. di nga traité ko ba mu baax. te réew mii ay biram ku ne xàmmee na ko. ci yoon rek la koy teg dëgg jub ak jubal. di nga nii ngay doxalee du nii nit dëgg mooy tiit dese fit mer dese ay teggin ñàkk ndam dese ngor am ànd ak sagoom ci ko ànd ak borom tawféex sa léppay féex noqul jiitu ma yóbbu la ah li ngay def nii keroog ah? mbaa mbir mi doxoon na. dara doxul kii ay yuuxu sama jabar la bëggoon sàkku te looloo hmm. looloo tax. Eh, jàpp jinjeer jaataangoon jinjeer. jàpp ka aywa jinjeer nga dem. jàpp ka ah di yaa ngi dem. maa ngi ñëw. soo dof doflu ba nga naan garab waa ji kaw nag ngay dem si saabu xeme bi yow de yow dof doflu nga dem nga nga waa ji mu baab la ba jox la doom nga mos sama diggante ak yàlla di nga dem garage Nioro fu ñu jaayee saabu xeme hey. ku ñëw ci moom.